ayaat yooyu mooy boppu sóoratu rahman sóoratu rahman nag boo ko doon jël ci wàcc ak ci toftale mi ngi wàcc gannaaw sóoratu raadi bi raadi wàccee rek arrahmaanu moo ci tegu mais yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne nañ ko def ci gannaaw sóoratul qamar ndax dafa am tanaasub sóoratul qamar boo koy seet yàlla ngi ci doon wax luusmaawu mooy katu yàlla yi te mooy safara innal mujrimina fii dalalin wa suxur wax tamit wu ña doon topp yàlla yàlla gërëm seen topp ga ci aljana innal muttaqina fii jannatin wa nahar fii ci suratu rahman dana wax ak ñun ba jël waa safara dugal leen ci seen luusmaa gannaaw gannaaw juróom-ñetti fa bi ay alaay rabbikuma tukazibaan la koy wax mu tollook juróom-ñaari kon fa bi ay mu tollook juróom-ñaari bunti safara ya dana wax tamit waa aljana yi ba dugal leen seen losement ci aljana mu nekk ci gannaaw juróom-ñetti fa bi ay alaay mu tolloog juróom-ñetti bunti safara ya te naasut googaa tax yonentu bi ne nañ ko dugal ci gannaaw suratu xamar muy benn ñaareel ba timit suratu rahman dafa ñëw di tontu laaj bi saar wii di jeex muy suratul qamar yaa ne woon fii maqaadi sidqin inda malikin muqtadir kooka mooy kan mu ne kooku mooy arrahmaanu allama alquran mu ñëw tamit di tontu bi yàlla wàccee ci yonantu bi alquran muy lu leer mu koy jàngal nit ñi seen mbon nga ak seen mën a weddi ga taxaw ñu ne lii de benn waay mooy ñëw di ko ko jàngal rek wala wa laqad naalamu annahum yaquluuna innama yuallimuhu basharun loolu lañ doon wax yàlla ne leen déedéet nag ki ko jàngal duhut mindeef kooku ki ko jàngal mooy arrahmaanu allama alquran bam ne leen ki ko jàngal mooy arrahmaanu kon nag usgudoo li rahmaani su jotal leen rahmaan ñoom ñu ne rahmaan daal xamuñu ko kiñ ci xam mooy musaylimatul kazaab moo tax ñu ne qaaloo wa man rahmaanu kan mooy rahmaan yàlla ne arrahmaanu moomu ma wax ngeen sugatal ko ko kooku mooy allamal quraan kooku na musalimatul kasaab mënu ko kon dafa ñëw di tontu ay laaj arrahman suratu rahman li mu ëmb ci ay aya juróom-ñaar fukki aaya laak juróom benn soixante-seize li mu ëmb ci ay baat ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn trois cent cinquante et li mu ëmb ci ay xaraf junne la ak juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom benn 1636 la ëmb ci ay xaraf li mu ëmb nag ci ay mawduwaat dafa ubbee saar wi rek wane ne yàlla ci boppam moo jàngale alquran kon yow jàngalekat bi loo sonn sonn bul foog ne yaa jàngal nit ki am na ku nekk ci suuf kuy jàngale te gisoo ko waaye loo sonn sonn ki jàngale bu yàlla deful tawfiq ci ki ngay jàngal du xam dara moo tax mu ne kii jàngale kenn la mooy arrahmanu allama alquran kon jàngalekat bu mag bi yëpp mooy yàlla ñu déggee ci tamit ne ndeke képp kuy jàngalekatu katu mécc woo nga méccam yàlla méccam yàlla mooy jàngale alquran moo ko waxal boppam kon tamit jàngalekatu alquran yëpp ñoo yàlla ñoo bokku mécc kon jàngale alquran am na doole ba mu ca bàyyee ko mu ne xalaqal insaan yàlla mooy ki bind doom aadama waaye gis nga ko kon doomu aadama bind dafa njàngale la njëkk a tudd door a door door a door a tudd bind kon yow miñ bind bala ngaa mën a mat rek da ngay li lay mën a matal mooy alquran li lay mën a matal mooy alquran ak li mu ëmb waaye boo nekkee mbindeef mu ñu bind nekkoo ku ànd ak alquran tamit nga rek waaye matuloo ma tax ba ne allama alquran ne xalaqal insaan boo ko jëlee tamit alquran day tekki ne nekkul mbindeef waaye melow yàlla la alquran yàlla dana ko tudd lu mat juróom fukki yoon ak ñeent ci téere bi waaye amul fenn fenn fu muy waxee ne mbindeef la fu mu wax rek dafay du ko saxalal mindeef waaye doom aadama fu ko yàlla bindeet fu mu ko tuddee ci téere bi rek day wax ne mbindeef la moo tax léeg-léeg nit ne alquran ak yonantu bi lu ca gëñ njuumte la yonantu mbindeef la mbindeef yi la gën alquran nag sifatun qadimatun la melow yàlla la nekkuñu benn bi ci tegu tamit mu wane man yàlla bind naa jant ak weer ñi may sujjootal kon ndeke li nekk ci kaw asamaan yëpp topp na yàlla mu ne bind naa garab yi ak gàncax yi tamit ñi may wommatul kon moom ñi nekk ci suufam koy wommatul ñu nekk ci kawam koy wommatul ashamsu wal qamaru bi xusbaan mais wan najmu wa shajaru yasjudaani bi mu tuddee nag ba pare door dugg ci fa bi ay alaa yi fa bi ay alaa yi boo ko calculer lépp fanweer benn la moo tolloog arrahman alu maarifa googu boo ko siifuree al gi 31 la lay jox ndax alif benn la laam fanweer kon arrahman alif googu di maarifa gi dafay junji fa bee yi ala yi nekk ci biir saar wi di fanweer benn fanweer benn yëpp dafa séddaniku ci ñeenti xaaj dana tudd juróom-ñett maanaam lëkkale ko ak fabi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan yu njëkk yi yooyu yëpp dafay wax kaawteefu mbindeefam yi kaawteefu bindam gi lim bind ci asamaan mbaa mu bind ko ci suuf mbaa mu bind ko ci jinne mbaa mu bind ko ci nit liggéey bu kéemaanu booba la yàllay wane gannaaw juróom-ñaari fabi ayyi alaa'i yi moo tax ma ne fabi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ne xalaqal insaana min salsaalin kal faqaar fa li mu ne wa xalaqal jaana foofa yëpp mbindeef rek lay wax bu ca bàyyee ko tuddaat juróom ñaari fa bi yi alaa yi lum cay tofal mbugal ci safara safaraak ni mu méttee ña koy weddi nañ ca war a duggee ëllëg juróom ñaari tolloog juróom ñaari bunti safara yi bu ca bàyyee ko tudd ñaari juróom ñett juróom ñett fa bi yi alaa rabbikumaa tukazibaan di melal ñaari aljana firdawsi ak janatul ma'wa xéewal yu rëy ya ñu ëmb bu ca bàyyee ko tuddaat fa bi yi àlaay rabbikumaa tukazzibaan juróom-ñett tuddaat ñaari melaw aljana wa min duunihimaa jannataani loolu lay mesal na ba saar wa jeex muy juróom-ñett juróom-ñett yi benn bu ci nekk tombeeg juróom-ñetti bunti safara yi waaye ñeenti aljana la tudd janatu adnin janatu naim janatul mawa janatu firdawsi mais aljana ju ne dafa am darajatu boppam boo ko calculé muy juróom-ñett kon lii la saar wi ëmb ci ay fa bi ay àlaay rabbikumaa tukazzibaan kon wax naa la saar wi li ëmb ci ay aaya wax naa la li mu ëmb ci ay xaraf wax naa la tamit li mu ëmb ci ay baat mawduaat yi mu ëmb tamit wax naa la ko suñu boroom nag tàmbali ne bisimilah sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xewalaa bépp mbindéef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira arrahmaanu yàlla allama moo xamal ku ko soob alquraan alquraan arrahmaanu yàlla allama moo xamal sayduna muhammad alquraan alquraan xalaqa bind na moom yàlla al insaana xeetu doomu aadama allamahoo xamal na ko albayaana ak tudd asamsu jant bi wal xamaroog weer wi bind na leen ñiy daw bi xusbaanin ci calcul wan najmu gàncax yi wa sajaroog wa sajaro garab yi kon bind na leen yes gi daan nañu sugatal yàlla wa sama asamaan si yëkkati na ko rafaxaha yëkkati na ko wa wadaa tëral na al misaana ak maandu allah tan xaw ngir bu leen jeng fil misaani ci jumtukaay yi ngeen di peesee wa aqimoo na ngeen taxawal alwas na jëf bil xisti ngeen teg ko ci maandu wala tuxsiroo bu leen pertal al mawsuuna lañ al misaana la ñuy peese wal arda suuf si tëral na ko wadaaha tëral na ko lil anaami ñeel mindeef yi aji nekk la ca suusa faakihatun fur wi wan naxlu ak tàndarma zaatul akmaami bay boromi kàmbóot wal xabbu ak pepp wal asfu maanaam wal xabbu pepp zul asfi bay boromi cugg wa rayhaanu ak xob yu ñuy fóon lii la saar wi kon commencé ubbee ko kon yàlla nee na maa xamal sayduna muhammad alamal quran la wax juróom benn yonantu kenn ko ne li la yàlla xamal ak sa morom du benn waaye lim xamal yonantoo gën a foor aadama lu mu wax laa ko xamal turiya wa allama aadama al asmaa yonantu yàlla daawuda lu ko yàlla xamal rabb mbu mam koŋ wa allamnaahu sanaata labuusin yonante yàlla suleymaan lu ko yàlla xamal li picc yee sab maanaam wa allamnaahu mantiqa tayri xadir lu ko yàlla xamal euh, mooy xam-xamu la dënnu wa allamnaahu min ladunaa ilman waaye ku mel ni euh, yonentu yàlla yusufa lu ko yàlla xamal firi gént wali nu allimuhu min taawilil ahadithi waaye ba mu ne sayduna muhammad lu mu ko xamal mu ne allama al qur'ana ndax mooy li hëmb lépp kon kenn du yonentu bi mu ne tamit allamahul bayaan nit lim wuuteeg lu dul nit mooy wax wax mom nit rek la ko yàlla jagleel lu dul nit moom day bëmmu wala muy meem wala muy sab waaye wax nit rek moo tax ci xam-xamu man mantiq suñ ne la xayawaanu naatiq rek ñu ngi ci doon ñu ngi ci nangu doomu aadama maanaam kon xayawaan gi moom ak ñeneen ñaa ko bokk mais naatiq gi nag muy nutq gi moom kenn moo ko am ñi ci des ñëpp dañuy junj rek moo tax kon mooy ma allamahul bayaan waaye tamit bind jant bi ak weer wi ñuy dox ci la ñu mën a xamee at mi ci la ñu mën a xamee weer yi waaye weer yi weer yi suñ jaamu yàlla yëpp yàlla nga ko ëmb ci weer maanaam ci lañu xamee weeru koor wi teru nag jeex na jigéen gu ñu fase muy yeddawu ci weer ci weeri weer la koy mën a xool ku jëkkëram génn àdduna muy tenji ci weeri weer la koy mën a xool aj yi sax ci weeri weer lañ koy mën a xool muy wori ak diggi ak tabaski kon euh, bind na jant bi ak weer wi bi xusbaanin waaye tamit bind na jant euh, garab yi buñ ne najmu mooy garab gu amul peer mooy gàncax yi ak gajj yi mooy najmu buñ ne sajaru mooy garab gu am peer kon li yàlla bind ci ay gàncax lu am peer ak lu amul peer lépp root nañ di sujootal yàlla wa in min shay'in illa yu yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum kullun qad alima salatahu wa tasbihahu yàlla bindul lu ko sujootalut kon yow boo ko sujootalut perte nga rek lay tekki waaye gis nga ko tamit bi mu tegee alquran mu nekk misaan bi gën a maandu bu ñu war a mën a teg suñ tànk mën a xam fi ñu mu indil ñu tamit ne li ngeen di jëflante lépp bëgg naa ci maandu rawatina yéen ña nekk ca marché ba di peese moo tax mu ne wa aqimul wasna yéen ñooy peese ca baskiliya bu ngeen di jënd na daanu bu ngeen di jaay na daanu amee leen benn baskil bi ngeen di jaayee jëndee leen ci yéen ña yore poids ya tamit benn natteekaay bi ngay jëndee moom ngay jaayee yéen ña yore ca tissu di di mètre na mètre ba mat. loola lépp bu manqué dana nekk mbugal waral la ëllëg ci alqa ci àllaaxira moo tax kon yàlla bëgg nañu maandu ci peese yi bu baax a baax a baax a waaye nag nekk peese kat boo xam ne ñaari baskil nga am yore ab xale boo xam ne yaag moom déggoo ngeen suñ la indilee marchandise mooy war a jaay booy war a jënd nga ne ko ma baskil boo mu ne papa ban nga ne ko booba booba kat yéen ñaar rek a su fekkee da ngay jënd tamit nga waxaat ko loola. xam nga ne loolu tamit maanaam musiba la benn waaye dem na ci nekk ci loola di peese ndax nit ñi rek bay dee fu muy sukkuraatee ñaari doj yu mag tiim ko mu ne ñaari montagne yi ma tiim yi ma tiim ni la wax ba waxu ga teqali koog jëmu ja ndeke mooy ñaari poids yam doon peese kon yéen ñooy peese ca syndicat ya na daanu de yéen ña ca marché ba ca lëjum ya na daanu de yéen commerçant yi ca piis ya na meetar bi mat de lii boo ko defut di lekk xaq jàmbur yi bala ngaa dee dana feeñ ci sa jëmm ji feeñ ci sa place bi boo lëggee xaq ya topp la nga dem safara yàlla nañ ci yàlla musal kon nag wala tuxsirul misaana moo tax kon digal nañu nañu nañu nañu saxal maandu ci li ñuy peese waaye mu tegal ci beneen ñaareel bi allah tatxaw fil misaani mooy baskil bi ngeen ni peesee na baax waaye bul def ay buum yoo takk wala ay doj yoo takk ca suuf day gaaw a daanu ta fekk matul poids bi loolu du jeex jaaykat yi ñoo ma ko gën a xam kon tamit ña ngeen la ngeen di peese jumt na na mat jumtukaay bi ngeen koy peesee na baax ngeen peese ko ci anam gu mat sëkk waaye mu ne wal arda wadaaha lil anaam kon ndeke suusee li mu yaatoo yëpp nit ñi rek ko fi taxane bu fi nit ñi neexatu rek suuf fi ko fi yàllaa tax mu tëral ñu fi suuf kon ñun ñoo tax yàlla def fi suuf si bu ñu fi neexatu rek suuf si dem moo tax mu ne wal arda wadaaha lil anaam suuf soosu nag mi ngi ëmb ay gànjar furwee ngi ci arab yi dañ koo bëggoon pepp yaa ngi ci di ci sax wurus waa ngi ci jamaa baa ngi ci or yaa ngi ci léeg-léeg am fu ñu turwe léeg-léeg rek mu am fu ñu réere waaye lépp yàlla defal nañu ko mu ñeexal ñi nekk ci suuf kon lii la yàlla ubbee saar wi juróom-ñaari ci tegu nag mooy juróom-ñaari kaawteefu li mu bind ci ay kaawteef lii nit la lii jinne la lii penku bi la lii soowu bila lii géej yi la loolu lay wax nag ci juróom-ñaari fa bi ay yii ñu war cee teg muy tekki ne juróom-ñaari ma bëgg a wax ku ko fas gëm ko la mu laaj nga def ko wéetal yàlla moom mi bind am kartan gi yàlla dana la musal ci eh, ci juróom-ñaar yi nga jëfe juróom-ñaar tegu muy juróom-ñaari bunti safara ya soo lëggee boo ci muccee nag danga dugg ca ñaari juróom-ñett ya te mooy juróom-ñetti bunti aljana ya loolu saar wi ëmb moo tax mu ne fa bi ay alaa'i rabbikuma ana ban ci seen xéewali borom yéen nit ak jinne moom itu kasibaani ngeen i weddi xalaqa bind na moom yàlla al insaana suñ maam aadama min salsaalin ci ban buy keleng-kelengi kal faxaari ba mel ni yooyu ñu defee ndaayi muy ndaayi wa xalaqa bind na aljaana iblis min maarijin ci aji jalangu min naarin ci safara fa bi ayi alaa'i rabbikuma ana ban seen xéewali borom yéen nit ak jinne tu kasibaani ngeen i weddi rabbul mashriqayni mooy borom ñaari fenkuwaay yi fenkuwaayu noor ak nawet yëpp yàllaa ko moom wa rabbul maghribayni mooy borom ñaari soxuwaay ca jamonooy noor ak nawet fa bi ay alaa'i rabbikumaa tukasibaani ana ban seen xéewali borom ngeen di weddi yéen nit ak jinne maraja moom yàlla moomu yebal na baxrayni ñaari géej yi yaltaqiyaani mbir moomu ñoom ñaar ña ngay fàddante waaye baynahuma aji nekkale seen diggante barsaqun aji digale laa yabqiyaani duñ jaxasoo mukk ndox mu neex meeg mu naqari mi fa bi ay alaai rabbikuma tukasibaani yaxruju dana génnee min huma tukkee ko ci ñaari géej yooya al lu'lu warusu lu'lu wal marjaan ak warusu marjaan fa bi a ay alaai rabbikuma ci ban ci seen xéewali borom yéen nit ak jinne tukasibaani ngeen di weddi wala hoo aji nekk la ñeexal géej googu al jawaar yi gaal ya di way daw al munsaatu ya di yuñ sos fil baxri ñu nekk ci biir géej gi kal a'lam ba mel ni ki montagne fa bi ay alaai rabbikuma ana ban ci seen xéewali borom yéen nit ak jinne tukkasibaani ngeen i weddi kullu man alayha lépp lu nekk ci kaw suuf faanin aji alkula wa yabqa dana des wajhu rabbika jëmmi sa borom zul jalaali kay borom ak màgg wal ikraami tay borom ak terale fa bi ayi alaa'i rabbikuma ana ban ci seen xéewali borom yéen nit ak jinne tukkasibaani ngeen i weddi yasaluhu dana laaj ko moom yàlla man fi samawaati mboolem mi nekk ci juróom-ñaari asamaan wal ardi ak mboolem mi nekk ci juróom-ñaari suuf ñu ngi koy laaj ay soxla ñi ci suufa nga koy ñaan wërsëg ak njëggalu ñi ci kaw ñi ngi koy ñaan ak njëggalu kulla yawmin bépp gendeeku huwa moom fii shay'in nekk na ci ay mbir yu muy feeñal fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaani sa dana ñu jublu làkkum ci xisaab leen yéen it ak jinne moo tax mu tofal kene ci xisaab leen ayyuha saqalaani yéeni ñaari ndëgër bopp yi li yàlla bind yëpp nit ak jinne ñoo ci gën a dëgër bopp yaa maxsaral jinne hee yéen nit mbooloom jinne mi wal insi ak nit ñi in istaatu moo su ngeen manee antan ngeen génn min sama samawaati ci goxi juróom-ñaari asamaan wal ardeeg suuf fan fu soo génn leen laa tan fu soo na leen a génn mukk illa bi su tàllulu sama lay su lulu sama kartan kon juróom-ñaari fa bi ay jeex na juróom-ñaari fa bi ay yooyu da ciy wane rek kaawteefu li mu bind mu njëkkee ko ci suñ maam Adama bi koy bind ci ban buy keleng-keleng dana ko tuddee faneen min tiinin laasibin fii mu ne maanaam Euh, min salsaalin kal faxaar ci la ko bind jën wi ba mu jëlee ban bana ba mu wow moo indi min salsaalin kel faxaar faxaar xam nga siixatu mubaalaxa la ci faxru mooy ndaa yooyu ñuy lakk di ci def ndox ñu ne dafay tiitaru ci yeneen moromam suufam yi ne maa ngi nii suuf laa bu ñu lakk maa ngi ëmb ndox ni nga di cay naan te du ma leen lor tiitaru googa nag moo tax tamit nit moomu ñi bind ci loola tamit ñaareel tiitaru kat lay doon kal faxaar fu ko fekk mu ngi puukarew mu ne tamit maa bind jinne ci safara ju suy tàkk moo tax kon yeneen yonent bi daan wax ne ku mer rek na xam ne saytaane la seytaane mi la merloo ba tax sa bët yi xonq moom mooma ci safara lañ ko bindee demal nga jàpp rek nga julli soo ko defee rek maanaam mer ma féex mu ne ma bind tamit euh, penku yeeg sowu yi mu def ko tasniya dana ñëw ñetti yoon ñëw na mufratal ko rabbul mashriqi wa rabbul maghribi dana wax ne rabbul masariqi dana wax rabbul mashriqayni bu ne masaariqi nag da koo gendeeku ca fenkuwaay bu ne bis bu ne ak fenkuwaayam ci 365 jour yi su fekkee dafa rabul rabbul masriqi place ba la gendeeku bul nag masriqay ni ak maxribay ni jamonooy noor ak jamonooy nawet moo tax mu tas tasniya ko ci ñoom ñaar ñëpp su ko defee tamit ñaari géej yi ngeen xam bi weex xatt ak xorom bii saf suukar ña ngay dóorante ngeen gis ndox yay jaxasoo te jaxasoo wuñ mukk mu saf xorom mi du dugg ci biir mu saf xorom mi tamit mu saf suukar mi tamit duñu duñu da ngay laalante fekk laalantewul loolu nag mu tasawifu ne ñu ne mooy géej ak maanaam wilaaya ak géej ak nubuwatu ñu ngay tëbbante di jaxasoo ta fekk jaxasoo huñu mën nañoo dem bay laalante te fekk laalante ñu huñu yaltaqiyaani baynahuma barsaqun laa yabxiyaani yàlla moomu tamit nag moo defar ay gaal ñuy daw ci biir géej yi nga gis leen mu la ñu la yóbbu fu sori di yóbbu sa bagage yi fu sori soo ko bëggoon a yan da nga xam ne li la yàlla defal xéewal gu rëy la moo tax mu ne walahul jawaarul munsaatu fil bahri kal alaami kon lii lépp yàllaa ko def moom moomu tamit su fekkee yéen nit ak jinne mën ngeen a génn jaww ji ñu ne loolu àllaaxiraa ko tax a jug bu ñu yeggee ca pencam yàlla ma ku mën a rëcc rëccal kenn du mën a rëcc foofu moom kenn du ko man fii tamit su fekkee am ngeen kartanu mën a génn monde bi ngeen dund dem ci asamaan di seeti weer wa wala ngeen seeti jant ba yoon waa ngoog du ngeen ko man lu dul sama kartan su ma leen kattanalee rek yéen ngeen mën a dem kon tubaab yi seeti weer yi leen xéem ñi seeti jant bi bu leen xéem lépp laa tanfusuna ilaa bi sultaan la leen yàlla defal kon xuwatullaahi rek moo leen gunge ku ku xëwatu ku kartanal yàlla gunge nga mën a dem fu sori mu indi avion yi nga mën cee yéeg juróom-ñetti waxtu nga yegg màkka te suñ maam ñi daan nañ ko def juróom benn weer ci bato bi ñenn ñi daan dox di am ñaari at duñu yegg tey nag yàlla tàggatal la ko tey nga xotti jaww ji ca yoon yooyu juróom at rek nga yegg màkka kon laa tanfuzuna illa bi sultaanin loolu lépp yàlla la waaye tamit moom yàlla moomu kulla yawmin huwa fi sha'nin abdul muni mu ne laajoon nañ ko yonantu bi lu muy tekki mu ne mooy rek amul benn gendeeku lu tolloo xafa xippi lu dul yàlla dana am ñu mu rey boo demee jalaal mu ne xafa xippi gu nekk lu ma téeméeri junney jigéen danañ ëmb téeméeri junney bakkan danañ dee téeméeri junney bakkan dañ feebar téeméeri junney bakkan danañ torox téeméeri junney bakkan danañ tedd loolu lépp ku la yomin huwa fi sha'nin benn sëriñ daara bu mag bu ñu tuddee sajari yu dafa ñoon daan jàngale benn borom xam-xam ñëw bett ko ne ko waaw ku la yomin huwa fi sha'nin suñ borom moom tey ci lum ne mu sëgg gàkk ba demee mu def ay naafilaam def ay awraatam tëdd nelaw gént gis sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ki ki laaj loolu xadir la bu ñëwatee di la ko laaj rek ne ko su oonun yubdiha laa su oonun yëpp ta di uha ay mbir la yu muy feeñal rek waaye du lu muy bindati boo demee ci jawaahirul maani Cheikh na Tidiane nee na yàlla bindatu dara lam bindoon rek lay feeñal bind na lépp ba pare day feeñal rek kon su oonun yubdiha laa su oonun yëpp ta di uha ca ëllëg sa nag xadir ñëw nuyu ko ne ko sa borom tey moom ci lum ne ku la yomin hu mu ne ko su oonun yubdiha laa su oonun yëpp tadiuha mu ne ko jullil ci ki la lii xam naa ne mooy sayyiduna muhammad salli ala man allamaka mu julli ci yonantu bi kon am na ñoo xam ne bu gaggee yonantu bi moo leen di gàgganti loolu yàlla def na ko su ko defee kon loolu am na ci jamonoy imaamu malik demal ci jalaal demal ci ruuxul bayaan mu ne booba malik juróom-ñaari at la am mu toog ci jàkkaay yonantu bi rek sallallahu alayhi wa sallam benn ilimaan taxaw ca kaw min barba ne waaw lu yàlla namu ci kulla yawmin huwa fii sha'nin Malik nag nekk xalil bu ndaw ne ko da ngay laaj wala da ngaa bëgg xam mu ne ko damaa bëgg a xam damay laaj da ngay jëmeem da ngaa da nga a xam mu ne ko damaa bëgg a xam mu ne ko wàccal minbar bi kon comme yow xamoo da ngaa war a wàcc ci suuf mu wàcc Malik juróom-ñaari at mu yëg ca kaw ne ko kulla yawmin huwa fi sha'nin li ci yàlla namu Euh, doomu aadama ñaar fukki junney nooy la am ak ñeent moom lay nooy par bis nooy booba benn nooy bu nekk yàlla dana ci ëmbaloo lu mat téeméeri jongama dana ci rey lu mat téeméeri bakkan dana ci teral lu mat téeméeri bakkan dana ci toroxal lu mat téeméeri bakkan dana ci wàccee lu mat téeméeri bakkan dana ci am ñu mu yéegal lu mat téeméeri bakkan man bokk naa ke ñam yéegal nga bokk ci ñam wàccee kii mooy ku layoon fii sënin kon su unun yubdiha Cheikh na Tidiane moo wax wax ja rek mu jeex su unun yubdiha laa su unun yëpp tadiuha mu jeex kon juróom-ñaar yooyu moo jëm ci wàllu kéemtaanu bind ak yàlla ci ci jant ci weer ci asamaan ci nit ci jinne boo ca géndee ko kartanal yàlla nag ba wéetal ko juróom-ñett yi ma bëgg a tofal juróom-ñaar yi ma bëgg caa tofal muy safara tombeeg juróom-ñaari buntu yak mbugal mam ëmb da nga ca mucc moom lay wax si nii juróom-ñaar juróom-ñaar yi nga xam ne moo cay tegu te yëpp di affaire safara moo tax mu ne fa bi ay alaa'i rabbikuma ana ban ci sa xéewali borom yi yéen nit ak jinne tukkathibaani ngeen i weddi yursalu def na hebal alaykuma ci yéen ñaar ni di nit ak jinne suwaasun ak jalang min ci safara wa nuxaasun ak saxaar te bu ñëwee ci yéen di leen lakk falaa tantasiraani du ngeen am kartan ci man koo tere fa bi ayi alaa'i rabbikuma ana ban ci seen xéewali borom yéen nit ak jinne tukkasibaani ngeen i weddi fa idan shaqati bu xottee koo asamaawu asamaan si fa kaanat mu nekk kar maanaam wardatan mel ni fleur bu xonq këddi haani ba mel ni ki nalutu diw këddi haani ba mel ni deru dénd bu xonq fa bi ayi rabbi rabbikuma ana ban ci seen xéewali borom yéen nit ak jinne tukkasibaani ngeen i weddi fa yow ma isin bisab keroog booba laa yus alu deeful laaj in sun benn nit wala jaanun du taa kenn benn jinne an san bihi ci bàkkaaram kenn ko ne sa bàkkaar bopp lañ lay laaj duñ ko laaj keneen fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukkasibaani bis booba buñ ci xeggee yoxrafu def na xam al mujrimuuna kaccoor ya bi siimaahum seen mandarga ya fa yuqasu def na jàpp bi nawaasi ca cëmbër gën ya wal aqdaami ak ndëggu ya mooy maanaam ñi bokk njooñ leen dugal leen safara bu ñu xeg see ñu ne leen haadihi lii jahannamu mooy safara allati safara ma nga xam ne tukazzibu yu kasibu dana weddi bi haa ci moom na kàccoor ya su ko defee buñ fa duggee nag yatuufuuna ñoom danañu wër baynahaa diggante safara wa bayna hamimin ak diggante ndox mu tàng anin tàng jir fa bi ayi alaa'i rabbikuma ana ban ki seen xéewali borom yéen nit ak jinne tukkasibaani ngeen i weddi kon juróom-ñaar ya jeex na juróom-ñaar mooy juróom-ñaar yi mbugali safara yim tudd gis nga ko mi ngi ko njëkkee ci yursalu alaykuma man yàlla danaa hebal safara woo xam ne day takk ànd ak saxaar saxaar sa mooy ëpp safara wa boole koog safara woo xam ne tamit takk-takkale ñooy ëpp saxaar sa kook mooy noxaasun su ngeen ñëwee yéen ña doon weddi yàlla yëpp ma boole seen ndëggu ya ak seen bopp ya takk ko kutum leen dugal leen ci biir safara loola kon mu ne nag bu boobaa tamit buñ ca yeggee amul kenn ku ñuy laaj sa bàkkaar sa morom kenn ku ne sa bàkkaar bopp rek ci sa liste bi ci sa karne bopp ci lañ ko enregistré su ko defee nag boo ñëwee ñu la iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba moo tax mu duñ laaj kenn bàkkaar ab kenn buñ ca yeggee nag kàccoor ya dañ neex a xàmmee seen xar-xaram ya dafay ñëkk ñuul koog ñu jëlee seen téere ci seen wàllu càmmooy wala ñu téye ko wara a zahrihi moo tax mu ne mu mujrimuuna bi siimaahum ñi bokk leen nag njooñ leen nag su ko defee nag ba ñu yegg safara ñu ne haadihi jahannamu safara sa ngeen doon weddi mi ngi nii su ko defee nag ñu nekk ci biir di nekk ci diggante ñaari tàngoor yi ndox mu tàng jër mooy nekk seen café gu ñuy naan suñ ko naanee seen butit ya jureeku te mënuñ koo ñàkk naan ak ci diggante safara wu wuy lakk seen seen yaram bi kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha ci lii rek ci la ñu nekk yàlla ci yàlla musal kon juróom-ñett yi juróom ñaari yooyu la tudd mu tolloog juróom-ñaar yi bunti safara ya su ko defee nag ku gëm juróom-ñaar yi ma njëkk a wax ba jëfee ko mën ngaa mukki ci juróom ñaari yi moom xam ne moom moom laa ci tofal soo ca muccee foo jëm ci juróom-ñetti teeruwaay mooy juróom-ñetti bunti aljaana yi ci lañ jëm nii nag juróom-ñetti bunti yi lay wax ñaar lay njëkkee ñi boole seen ñaari darajatu ya muy ñeent mu tuddaat ñaar ak seen ñaari darajatu ya muy ñeent nga boole ko muy juróom-ñett moo tax mu ne wali man xaafa aji nekk la ñeel képp koo xam ne ragal na maqaama rabbihi taxawaayam ëllëg ca kanam boromam ñeexal na ko jannataani ñaari aljana benn ba mooy firdawsi benn ba mooy jannatul ma'wa ñaari aljana yooya zawata afnaanin ñaari borom yi ay banqaas lañ banqaas yaa nga liis kerga sedd lool doo dugg ci naaj mukk fa bi ay alaa'i rabbikuma ana bañ ci seen xéewali borom yéen nit ak jinne tukkasibaani ngeen i weddi fiihima aji nekk la ci aljaana yooya may wax xay naa ni ñaari sewnde ñaari sewnde yoo xam ne tajëriyaani dañuy dappetu ci ak daw heure bu nekk ñu ngi daw du dagg mukk fa bi ay alaa rabbikuma ana ban ci seen xéewali borom yéen it ak jinne tukkasibaani ngeen i weddi fiihima aji nekk la ca biir ñaari aljaana yooya min kulli faakihatin tukkee ko ci bépp fur wi sawjaani ñaari xeet fur wi boo xamee dafa tooy xepp ak fur boo xamee dafa waw boo soxla mu ñëw fa bi ay alaai rabbikuma baani ci ana ban seen xéewali borom yéen nit ak jënne ngeen i weddi mu takki ina mbir mu ñuy woy sukkandiku ala furusin ci lal lal yoo xam ne bataa inuha biir ga min istabraqin mu ngi tukkee koo ci wëluur bu ko defee wa wajanaa jëna tey ni ku mu ci ñaari ku mu ci kottiteefu ñaari aljaana yi le seen meññant ma daa nin aji jege suuf la boo taxawee lekk boo toogee lekk boo tëddee lekk amul yóotu amul uti lonk wajanal jëna tey ni daanin fa bi ay alaay rabbikumaa tukasibaani ana ban ci seen xéewali borom yéen itam jinne ngeen i weddi fii hi na nekk na ci biir aljaana yooya xaasiraatu tarfi jongama yoo xam ne way gaw lañ ci bët seen bët ya seen jëkkër rek lay xool du njaaloo ci biti jongama yoo xam ne lam yet mis hunna musul leen a xob bi insun benn benn nit wala jaanutaa kenn benn jinne xablahum njëkk seen jëkkër ya musuñoo ànd ak kenn fa bi ay alaay rabbikumaa tukasibaani ka annahu na daanaka ñoom jongama yooya yaquutu dañoo rafet ba mel ni wurusu yaquut wal marjaan wala ñu mel ni ak marjaan di per yooya kon juróom-ñetti aljaana yaa ngoog ñeenti aljaana yaa ngoog ak seen dara darajatu ya euh, képp koo xamee rek euh, euh, gëm nga juróom-ñaar yee rek danga danga da nga jël ci danga nga da nga am loosuma ci lii yàlla nañu ko yàlla defal kon nag aljaana yaa ngoog arab dafa bëgg ker te ker tamit ku ne ko bëgg ku sañoon doo nekk ci naaj wi moo tax yàlla ne sawata afnaanin ñaari aljaana ya seen gar seen seen ker ya dafa liis seen garab ya dafa rabbaloo ba ker ba ker ya ba ker ya nekk loo xam ne foo dugg rek jàng ci biir ker doo nekk ci naaj aljaana amul naaj naaj wi fii la xem gis nga tamit dëkk fu ndox am dafa neex boo fa duggee tamit piscine yi ma ngay sotteeku rek ak sedo yooyu gars yi di def nga xam ne gars yaa ngi koy jéem a toppandoor sax ci rond yi waaye du benn de ndox ma léeg-léeg mos kenn xamul lu mu niru waaye fee nag ndox ma dafa sell rafet di sotteeku rek ci sa pegg moo tax mu ne fiihimaa aynaani tajriyaani mu ne tamit arab yi dañoo bëgg fur wi moo tax mu waxee leen ko noona min kulli faakihatin zawjaan xeet boo bëgg ci xeetu fur wi rek ma nga fa nga bëgg pomme bi orange bi li ca aju lépp boo bëgg rek boo bëggee bu waw mu ñëw boo bëggee bu tooy tamit mu ñëw sa télécommande nga yore rek fi nga toog ngay tey nga commandé rek mbir ya ñëw ak palaat ya su ko defee tamit nag euh, kilifay arab yi dañoo bëgg bu ñuy toog wala ñuy lekk dañuy suuxandiku fu yàlla tuddee xéw danañ wax mu takki ina sukandiku ci seen njegenaay ya yàlla nee na lal ya ñuy sukandiku maanaam dara bañ ca lal wëlluur bu ko gën a rafet kenn mënu la ko wax mu ne tamit aljana yooya seen meññant ya nekkut lu sori ba muy laaj ngay uti lonk mbaa ngay ut xeer di jéem a sànni déedéet moom kay wajanal tey jannatayni daanin dafa jege suuf lool boo taxawee lekk boo toogee lekk boo tëddee lekk jongoma ya ca nekk tamit mosuñoo ànd ak génn góor mosuñoo ànd ak benn jinne yow yaay première jëkkër ci ñoom ñoom tamit ñooy première jabar ci yow moo tax mu ne lam yat misuna insun qablahum wala jaan su ko defee nag seen taar ba lay wax ne ka annahunna al yaquutu ñoo leen dàq waaye ci liñ xam rek tasbihu ala bil adna la nire la li gën a jege li gën a kawe ci li gën a suufe ngir li nga xam kon yëpp yàlla ko xadul waa aljaana yàlla nañ ca bokk moo tax mu ne ba yonent bi nag bu daan jàng fa bi ay alaa i rabbikuma tukasibaani noppi mu ne maa lii araakum sukuutan lu tax yéen nit ñi su ma ne fa bee yi àllaa ngeen noppi yéen de jinne yi ñoo gën a rafet nuñ may tontoo yéen ni ngeen may tontoo yéen da ngeen maa tontoo noppi te jinne yi suma jàngee dañuy wax ne yow yàlla sa xéewal yi nga wàccee weddiwuñ ci benn lépp lañ gëm ma min shay'in min ni'amika nukadhib rabbana walaka alhamdu kon fu ñu jàngee fa bi àlaay rabbikum boo koy jàngalee lu nga war yow yàlla sa xéewal yi ñun weddiwuñ ci benn lépp lañ gëm yow yaay kexeeyoo sant yonentu nee na bu ko jàngee jinne yi lii la ñuy wax kon tamit ñun nit ñi nañ wax loolu moo tax mu ne hal jasaawul ihsaani déet payoor ak wéetal yàlla ci laa ilaha illallah ilal ihsaan la dul hal képp ku wetal yàlla ci laa ilaha illallah ba dee ca sa payoor ëllëg mooy hal jana léegi nag aljana ju mujj ji lay wax yeneen ñaari aljana yu mujj yi wa min dunihima jannataani yooya nag ñaar yële ñoo leen gën a kawe aljanay firdawsi aljana janatul mawa ñoo gën a neex aljanay janatu naim ak janatu adnin ñoo leen gën a neex yonentu bi daana wax ne sax yéen de kuy ñaana ci yéen aljana na ko ñaan firdawsi firdawsi kat moo dàq ci aljana ya firdawsi nag ay quartier la quartier ba ca dàq mooy illiyiina fa la sayyiduna muhammad dëkk sallallahu alayhi wa sallam su ko defee kon nag yàlla ñu yàlla may illiyiina kenn mënta jaamu lu la fa yóbbu nag mais baax ak yàlla mën na la faa dugal yàlla nañu fa yàlla dugal ci barkeb yonent bi moo tax mu ne fa bi ay alaa'i rabbikuma ana ban seen xéewali borom yéen nit ak jinne ba ngeen i weddi wa min dunihima yées na ñaari aljana yooyu ci daraja jannataani yeneen ñaari aljana fa bi ay alaa'i rabbikuma ana ban ci seen xéewali borom yéen nit ak jinne tukazibaani ngeen i weddi ñaari aljana yooyu xees leen dañoo amee ay gàncax gàncax yooya sax ca de mu daha mataani ñaari yu nëtëx lañ ngir maanaam ñaar yu ñuul kukku lañ ngir tatak nëtëx ga ndax lu nëtëx ba ëpp boo koy xool day mel ni dafa ñuul fa bi ay la ayi alaai rabbikumaa tukasibaani fiihimaa aji nekk la ca biir ñaari haljaana yooya ay naa ni ñaari sewnde boo ko defee fa bi ayi alaai rabbikumaa taku maanaam ñaari sewnde yoo xam ne naddaa xataani ñaari seba kon lañ ña ngay seb wurus di seb misk moom daal boo bëggee parfum amul ci téye bi naan damay bës déedéet dalay tardeel moom boo soxlaa parfum bi rek dafa lay tiim rek ah ah maanaam mu sottee ko ci sa kaw ba nga doyal rek nga dem waaye nekk fanaan jox ma parfum bi ma xool bii ndax xet gi neex na dalay tardeel gaa yi jéem ñoo koy def mais parfum wa aljaana amul loolu maanaam aljaana moo lay parfum al boppam nat daa xataan yi ngay toog rek mu ñëw maanaam sottee ko ci sa kaw ba nga ne doy na rek nga dem boo soxlawaatee mu ñëwaat sottee ko ci sa kaw kon foofa am na ñaari sewnde yoo xam ne sewnde parfum la day sottee ko ci kaw nit ñi rek mu ne aljana yooya fiihi ma nekk na ca ñoom ñaar fakihatun furwi wa naxlun ak tàndarma wa rumaanun ak grenat fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukasibaani ana ban ci seen xéewali borom yéen nit ak jinne ngeeni weddi fiihinna aji nekk la ca biir aljana yooya xayraatun ay jongama yoo xam ne yu rafet jikko lañ xisaanun nekk ñu taaru ci ay xarxaram fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukasibaani jongama yooya xuurun la war a weex ci seen bët yi dafa weex tal war a ñuul ñuul kuk maqsuratun ñuñ gaw lañ fil qiyaami ca ber genn ya duñ dem fenn fa bi ayi alaay rabbikumaa tukasibaani jonga ma lam yet mi suuna mosuleen a xob bi benn nit wala jaanu caa kenn benn jinne qablahum njëkk seen jëkkër ya fa bi ayi alaay rabbikumaa ana ban ci seen xéewali borom yéen it ak jinne tukasibaani ngeen i weddi mu takki na mbir mu ñuy woy sukkandiku ala rafrafin ci ay moket xudurin yoo xam ne yu nëtëx la wa abqarin ak yu héeme xisaanin yoo xam ne ne yu taaroo taaru la yëpp ma nga ca biir aljana fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazibaani ana bañ ci seen xéewali borom yéen nit ak jinne ngeen i weddi tabaaraka bari na yiw isma rabbika turu sa borom zul jalaali kay borom ak màgg wal ikraami tay borom ak teral yàlla ñu yàlla teral kon kon loolu mooy suratu rahman ci tënk wax naa la ko ci farañ fànceeg la mu la mu ëmb ci fa bi ay aay di fanweer ak benn tolloog ali maarifa googu nekk ci arrahmaanu juróom-ñaar fu kaawteefu mbindeefu yàlla yi lay tudd juróom-ñaar ya ca tegu yëpp mbugalam safara lay tudd ñaari juróom-ñett yëpp ma ngay tudd nag aljana mu tolloog buntu ya bi bee tamit tolloog buntu safara ya ku fas juróom ñaari yu njëkk ya da nga mukki ci buróom juróom-ñaari bunti safara yi su ko defee sa loosuma ëllëg di nekk ñaari ñaari juróom-ñett yi di aljana yàlla nañ ko yàlla defal